ci weeru sawaal te buy jub si nuy fàttaliku ak a jàngat ay jikkoom ay meloom ay jëfam ngir gaaral ko réew mi ndaw ñi jànge ci mag ñi fàttalikoo ci ndax dund la goo xam ne ci dëgg ci lislaam ci njub ci xam-xam la ko tegoon nu di ko nafar sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Abdou Lahad nag digal nu nuy topp jeexit ak tànk yi nga xam ne amoon na ko ci biir réew mi ci bokk yi bokki jullit yi bokk yëpp incha allah fu ci ne nu dem fa taataan jaxasoo gu am solo googu nga xam ne uxuwa islaamiya googu nga xam ne daana ko dund ak bokki jullit yi nu taataan jeexit yooyu ngir réew mi jariñoo ko ngir ñu xam ne am nañ dono yoo am solo yoo xam ne jaaroon na fi sëriñ si di nag yebal nu tey nu ñëw fii ci alxadratul malikiya di béréb boo xam ne sunu kërug bopp la danoo jógee ci sunu kër ñëw ci sunu kër noo ngi fii tey ci kër Seydil Hadji Abdoul Aziz Sy ad-Dabakhi moom Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu wa nafaana bihima noo ngi nuyu sëriñ Babacar Sy Mansour mi nga xam ne mooy xalifa bi di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ko wér sumb ak naal yi nga xam ne naal na ko ngir liggéeyal ko maamam Seydil Hadji Malick Sy waaye liggéeyal ko nag umma islamique bi yëpp sun borom defal ko ci tawféex ba jumaa ji mu tàmbali mu àggale ko ba mun ne coleet nu ànd kook moom julli ko di ko ñaanal rakkam yi topp ci ginnaawam yëpp waaye itam di ñaanal sëriñ Maodo si mi nga xam ne mooy xalifab kër Seydi El Hadji Abdoul Aziz di ko nuyu di ko ziyaare moom itam di ko ñaanal suñu borom yokk kàttanam ak wéram ba yéene yim am ci liggéeyal El Hadji lépp moo àggale ko. noo ngi fii tey ci kër sëriñ Mansour si moom sëriñ El Hadji Abdoul Aziz si nu taatan ci moom ay kàddu ànd ko commission culturelle bi nga xam ne ñoom la sëriñ Sidi yabal fii ci njiitul sëriñ Abdoul Ahad Jaxate ak sëriñ sëriñ Abdul Ahad yi nga xam ne dañ leen a yebal ci yeneen béréb yi ñu am fa ay taxawaay yu ñuy taxawee mu jëm ci wàllu xam-xam ak tasaare njàngalem sëriñ Abdul Ahad ci biir lislaam nu fas yéene ànd ak yéen nag tey wutu leen fii Cheikh Abdul Ahad Ka moom sëriñ Mouhamadul Kabir Ka moom sëriñ Moussa Ka fas ci yéene ànd ak sëriñ man si ak sëriñ Makhtar Kebe mi nga xam ne Alhaji Abdul Aziz moo ko yar. jàngal ko defal ko lépp tabarakallah muy génne ay xam-xam yu am solo ak i laabire yu bari njariñ wuutu fa mboolem umma islamique bi yëpp tabarakallah kon incha allah dañuy ubbil kilifa gi Serigne Mansour euh, taatan ay kàddu ci moom yu jëm ci ay shahada ay shahadat ak ay alaaxaar yoo xam ne fàttaliku na ko yu jëm ci diggante Alhaji Abdou ak Serigne Abdoul Ahad ndax ñoom ñaar jenn jëmm lañu woon déggoo gi ñu war a jànge ci ñoom jokkuk bokk gi ñu war a jànge ci ñoom incha allah danu ci danañu ci dikkal kon dañuy jox sëriñ bi rek mu ubbil sëriñ Moxtaar bu noppee nu jox sëriñ Moxtaar incha allah. ama baad ayuha al ixwatu wal ahbab assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, ñu ngi jéem a wuutu suñu kilifa yi nga xam ni ñooñu yilif ñun ñëpp. du ma ko yomale rek ci sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour mi nga xam ni moo di xalif général de Tidiane di sama kilifa di sama sëriñ ngeen ñëw fekk ko fi fekk fi njabootam te su ngeen fi fekkee njabootam fekk ngeen ko fi te fekk ngeen fi tam seen bopp ñu ngi koy jéem ma wuutu moom ak Cheikh Al Hadj si Sy Abdoul ak seen rakk sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ñoom ñëpp ñu samay kilifa di samay sëriñ yal nañ fi yàgg te wér te noonu nii lañ koy ñaanale tam itam Cheikh Mouhamadul Mountakha ma ngeen jóge ca moom ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Ahmed Bamba suñu maam ju baax ja radiyallahu anhu suñu kilifa ga suñu sëriñ ga ak mboolem njaboot ga ca tuuba di njabootu maam Cheikhul Khadim maam Cheikh Al ak mam Cheikh Al Hadji Malick li leen boole dafa bari tiinan wa diinan ci diine ak ci deret ak ci suux yàlla moo leen takke ñu bawoo ci zalikumul allaama wa abdallahi saalih muy suñu maam Maxaram Mbàkke xam naa ni yàlla nangul na ma maaram ñaanal ñaanam te julul rek Mbàkke si yéen yi moo jur mbusoobe moo jur cànqeyeen moo jur kamayreen ñu sant kamarak maanaam moo jur Sénégal mam maaram nga ni mu taxa turuq la ci senegal ñii ma tudd ci njaal benn ni moom la ñu wuutu muy sëñ Babacar si mu Mouhamadul Mansour di Cheikh Al Hadj Malick Abdoul Aziz di sëñ Babacar Abdoul Aziz ak mbokk yeneen am ci seen ëttumam Cheikh Al Hadj Malick góor ak jigéen mag ak ndaw ak suñu mbokk taalibe yi ñu fa bokkal ñoom ñëpp xam nañ ni ñaari kër nekk fi benn kër fi nekk muy këru yàlla diggante Touba ak Tivaouane di kërug lislaam di këru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax maam yu tedd yooyu di maam Cheikhul Khadim ak maam Cheikh El Hadj ak seen mbokk yu baax yi ñu bokkaloon Sénégal ak fudul Sénégal ñëpp seen bëgg-bëgg moo doon nekk jaamu yàlla yu jubóog yàlla ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ceeg jaamu yàlla yi yàlla dogal ci ñoom ñu déggoo àndandoo ci tegu ci li nga xam ni moom la yàlla bëgg ndéem yàlla dafa ni wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yutaimun inna allaha wa razaqu dul quwati matin waaw euh, ba tax na kon euh, dikk gi ngeen dikk rëy lool ci bépp mbokk mu ngeen am ci ëtt bi ndax muy ñun ñi fi nekk ñëpp dañuy jéem a def tashabbus maanaam mooy ci li yàlla gërëm ne yoon waa ngi nii te loolu daf ko jaarale ci ay jaamam yu baax ndegam ci biir jamono dangay dégg dégg alquran di la indil ci ndigalu yàlla ci kàddu yàlla asxaabul kahf ñoo xam ni sax seen at soriwul woon ci seen dund ñu jubóog yàlla ba yàlla wax ci alquran innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan rawatina ñi nga xam ni uh, loolu uh, uh, dafa mësa nekk seen jaar-jaar ñu nekkoon fa leen yàlla jaarale mësuñ ca jóge ba ñu ba ne leen yàlla soxla woo leen ne kaay leen noppalu kaay leen ma fay leen ci kàttanu yàlla ñu dellu ci seen borom yaa ngi leen yàlla yërëm ñoom ñëpp yokk leen leer kon ñu fi toogee tànk yooyu lañ fi toogee wuutu fi cheikh Seydi Aboubacar si Mouhamadul Mansour ak rakam yu baax yi ma filim Cheikh El malik ak sëñ Babacar ak waa daara ji yëpp ànd ceeg sama rakk ju baax ji sama sëriñ bu baax bi muy Cheikh El Hadji Mouhamadul Mokhtar Kébé mi nga xam ni moom itam mam Maxtaar Kebe miñ ko tuddee kuy waajuram mam asta si asta si ñan la bokkal ci biir kër Demba Bunna mam Demba Bunna ñëpp lañu bokkal waaye ña ca bokk ndey ak baay nekkoon ay jigéen muy soxna mam asta si mam mati si ak mam aram bonko si aram bonko jur maam sa feetu ñang maam asta si jur maam maxtaar kebe mi nga xam ni moom la yàlla séddee maam fatim ali si doomu maam maxtaar pend si ñoom ñëpp di suñuy maam maam fatim ali yàlla sarax ko ca bay alxaaji malik kebe miy baayam di suñu di suñu oustaz jàngal ñu di suñu sëriñ di bàyyi xalifa kebe ma ca Thiès tey di bàyyi docteur Abdoul Aziz Kebe bu université de Dakar ak rakkam ak magam soo demoon tam ci kër maam Lamine Bousso maam Njóogu Ñang mi jur soxna Umul Xayri Ñang way juróom bu baax wi fi joge bu yàggul jànn ko yàlla yokk leer di taaw maam Njóogu Ñang maam Lamine Bousso bokk maam Jaariyatullaahi Bousso maamam la kon sëtu maam Maxtaar Penda la sëtu maam Maaram la sëtu maam Demba Buna la sëtu maam Lamine Bousso la sëtu maam Jaara Bousso la moom mii ak maam Lamine Ñang ah Lamine Mati waaw waaw suñu daan dem euh, Touba ànd ak Baye Laji Njóogu mu nekk mu jiite mbooloo mi Cheikh El Hadj Aziz daan yebal ñuy dem màggalu Touba di dem ci Baye Serigne Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu anhu mi tax ñu daje fi tey ci màggal gu tedd gi ñuy jublu ki daan andi carte yi moo doonoon alaaji may sa Seck bu Thiès jox ko Cheikh El Hadj Abdoul Aziz waaye balaa ñu daan suñu naan dugg Touba daañu fekk ministre Thierno Ba ñëpp xam nañu taalibe Baye Cheikh Abdoul Ahad la boobu jamonoy président Abdou Diouf la mooy ñëw ci buntu dëkk ba teeruñu euh, ci ndigalu Baye Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu anhu wala ku mu yebal am na ci at yoo xam ne dañ daan ñëw fekk màggal gi ka ko doon jiite nekk cheikh Mouhamadul Bachir Mbacké ci ndigalu ba cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu am na at yoo xam ne am na at moo xam ni ki ko jiite woon mooy Serigne Mbacké am na at moo xam ni ki ko jiite woon mooy Serigne euh, Moustapha ibnu Serigne Salih Mbacké ñun dañu doon dem toujours di fa fekk suñu baay bu tedd ba ba cheikh Abdoul Ahad radiyallahu anhu suñu ñëwaan daf ñu teg ci peggam nii ñoom sëñ Amsatu Mbàkke ñëpp toog ak waa Touba al Mahrousa mu wan ñu ni euh, Cheikh Al Hadj Malick waajuram la ni ko Cheikh Al Khadim maam Cheikh Al Khadim radiyallahu anhu doone waajuram digganteem ak Cheikh Hadj nekkoon diggante bu rafet rafete rafet loolu dañ ko fekke fekkeeti ko fekkeeti ko fekkeeti ko moo tax seen tànk yi daf ñuy fàttali bés yu tedd yooyee ci wetu bay sëñ Abdul Ahad radiyallahu anhu te du moom rek. ba ci bi ñu ànd ak Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh ñu dem bés boo zalikumul yawmul mashhud muy bés ba mu ñëwee ca Touba ziyaare si Cheikh Abdoul Khader Mbacke suñu sëriñ suñu baay bu baax ba gannaaw demuk suñu baay suñu sëriñ Cheikh Abdoul Ahad te ñu jullee ndoog baay Abdoul Aziz ca biir jumaay Touba ju tedd ja bésu ajjuma ba bi ñuy génn mbooloo mi yëpp naan Baye Cheikh Abdoul Aziz Dabakh yaa na yaa na nga fi yàgg téwér yaa na nga fi yàgg téwér ma dégg Baye Cheikh Abdoul Khadir naan sëñ Modou Mamoun Niang mu baax bi radiyallahu anhu moom tam mbokk Pape Makhtar mu ko jege la ndax soxna Ndumbe Niang bi nga xam ni moo jur maam xari Bousso muy magu sëñ Fallou Bousso di magu sëñ Sam Bousso ak sëñ Khadim Bousso kër googu tam dañ fa doon dem toujours ak Baye Alaaji Njogu Niang ba ko defee bay cheikh abdul qadir naan sëñ Modou Mamoun a ah, waxal sa nijaay ji ne ko ah lii de kenn sawu ko nit ñi de yàlla ko def seen xol moo tax ñu ñaanal ñu ñu ñaanal sa nijaay ñaan gi ñu ko ñaanal ndax mbég mu ànd ak ixlaas la ak sidq ci ngir tànk yu rafet yi nga xam ni seqee na ko ci Tiwaawoon ba ci kër bàyyi bi di maam Cheikh al Xadim radiallahu anhu kon su fi oustaz Pape Makhtar Kébé teewee moom dama naan euh, dafa di suñu maktaba wala suñu zakira tabarakallah moo tax muy bëgg lu nekk te teñ ko daan doxandool ni maamam Cheikh Abdoul Aziz bàyyam Cheikh Abdoul Aziz mu fekke ko buutu ci kilifa yi nga xam ni dañu leen bokk rawatina ñu am mbokk yu tedd yu sell yu yiw yu mel ni yéen ngeen jóge ca gannaaw ndigalu Cheikh Mouhamadul Muntaka xalifa général de mourides ibnu cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh al Khadim radiallahu anhum mu jaar ci njabootu maam cheikhul Khadim yëpp waaye jaar ci suñu doomu baay bu baax ba Serigne Sidi Mbacke moom cheikh Abdoul Ahad radiallahu anhu ñoom ñëpp yaa nañ fi yàgg téwér ak yéen ñi ñëw moo taxoon ñu ni daañ fi wuutu sëñ Babacar Mansour ànd ceeg sëñ Pape ànd ceeg euh, Cheikh Alhaji Cheikh gay bu bàyyi Alhaji Amat Gaye bu compagnie sénégalaise moom itam di doom ci kër gi nga xam ni kër maam borom Touba la kër maam Alhaji Malick la di fi sët di fi taxaw taxawaay bu rafet barki dem rek mu ngi ànd ak président fédération daayira yi nga xam ni ñoom ñoo war a def gàmmu gi ñu war a def balaa yàgg feeg ayu bés fii ci Ndakaaru ci Sacré Cœur mu ngi ànd moo dem yóbbu ba Touba ba ñu gis sëñ Ahmed Badawi Mbacké moom maam cheikh bu bàyyi cheikh Mouhamadul Fadil gis te moom mi nga xam ne mooy euh, mu diirul euh, mu diirul jamiatu cheikh Ahmadul Khadim radiallahu anhu directeur bi jóge fa dem ci cheikh Mouhamadul Bachir Abdoul Qadir yaa nañ fi yàgg ñoom ñëpp te wér jóge fa dem gis euh, Sëriñ Koso moom cheikh Mouhamadul Muntaxa ci ndigalu góor ga xalifa ba te bañ fa jógee noonu la ñu ñëwee ba ci Cheikh Abdoul Ahad moom sëriñ Cheikh Ahmed Mbacke Gaynde Fatma fii ci këram ci sama kër bàjjen fii mu nekk ci parcelle euh, ñoom ñëpp ñuy bége istiqbal xaar teertu ak tatagal goo xam ne lépp bokk la ak cofeel ak kolore guy bellee ci ñoom làmb leen ñoom ñëpp noonu tam nañ ko defee ci Medina Baye bés bi moo tax ñu jóg waaye l'islam dafa di benn ba ñu demee ci cheikh Mouhamadul Mahi Niass atalallahu baqaahu noonu la def ak ñoom ak cheikh Mouhamadul Mahi Cissé ba ñu bi ñu demee ci cheikh Abdoul Moutalib di sëtu cheikh bu nekk fii sëtu cheikh na Tidiane di sama sëriñ fii ci pikin ba ci Thierno Madani ba ci Thierno Mouhamadul Bachir moo tax tànk yi day boole lislaam bi day dundal lislaam bi day jokkale lislaam bi moo tax bay cheikh Abdoul Ahad meloo woon woowu melo te laaxar wa ku jóge ci maam Cheikhul Khadim noonu la mën a wéro noonu la war a melowoo muy deretam muy taalibeem te borom deret yëpp taalibeem lañu borom taalibe yëpp deretam lañu noonu la leen jure tiinan wa diinan ñu ngi ànd ak uh, kon gannaaw Cheikh Gaye Serigne Cheikh Omar Foutiou bu Serigne Maodo si baax sëñ Moustapha bu Saydou Nourou sama mag. waaw ñu ngi koy nuyu moom tam sëñ Cheikh Omar. Euh, doomu Cheikh El Hadj Malick Abdoul la waaye mi ngi nekk ak euh, doomu baayam rakkam mu sëñ Moustapha si doomu Al Hadj Seydou si mi sama mag di rakk ci sëñ Babacar Mansour ak Serigne Maodo di seexu sëñ Babacar Abdou ñoom ñëpp ñu ngi toog. moo tax euh, Cheikh Abdoul Ahad Ka Cheikh Abdoul Ahad Jaxate Cheikh Abdoul Ahad Bousso yéen ak bépp mbokk mu tedd bu ngeen àndal caméraman yeeg ñëpp rek ak journaliste yi nga xam ne ñu ngi ànd ak yéen ci liggéey bi pour taataan si kàddu yi ñu ngi wuutu kilifa yooyu ma lim yëpp ci sargal leen tatagal leen di leen wax marhaban wa ahlan wa sahlan di ñaan yàlla dalal leen jàmm ndax lii day dellu ci xamal gu ngeen bëgg a xamal nit ñi ne leen suñu baay Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu anhu dafa nekk dëgg-dëggu njabootu mam Cheikhul Khadim nekk dëgg-dëggu wëjur woo xam ni suñu kilifa la bu won nit ñi yoon wi ne mi ngi nii yoon woo xam ni day won jullit bu am sens fekkee jamonoom wala nga dégg kéemtaan ya mu doon taxawe diine ji ak bokk gi ak réew mi ak adduna bi ak liggéeyu maam borom Touba daf leen di won ni yoon waa ngi nii mu dellu ci li bàyyam ba Cheikh Alhaji Malick radiyallahu doon wax ku des dese te moom ba mu fi nekkee liggéeyal na maam borom Tuubaa liggéey boo xam ni njëriñ li du dañ di wàcc ci kaw suuf ilaa an yarisa allahu al arda wa ci ni mu taxawoo turaasu maam Cheikhul Xadim ilman wa iqtisaadan wa ijtimaaciyan ilmiyan wa iqtisaadiyan wa ijtimaaciyan maanaam ci wàllu xam-xam scientifiquement intellectuellement économiquement mooy iqtisaadiyan ijtimaaciyan mooy sociologiquement et socialement pour wane génie maanaam pour wane xereñ gi yàlla may suñu maam yu baax yi tëdd ci réew mi mayoon ko maam cheikhul xadim radiallahu anhu njabootam yëpp ñëw dundal ko ku ci nekk nag ak pàcc ba ko yàlla dénk mu cay liggéeyee ba ci cheikh Muntaqa mi fi nekk tey waaye Baye Alxaaji Abdul Bay Sëñ Abdul Ahad liggéeyam macha allah tabaarakallah ñëpp ko ko seedeel ci njàngale maag ca Tuuba ba ci bibliothèque ba fa nekk ba ci euh, ba ci ba ci lépp luy jëm luy jëmmal euh, tedd ngay doomu réew mi ak njabootu maam Cheikhul Khadim bëgg nit ñi am al iktifa azati autosuffisance ba duñu compter ci kaw kenn xam ni liggéey rek a takku te lu mu am ci ñaqam def na ko ci waaw ci lu jóge ci xelkom ak fudul xelkom ak lu jiitu xelkom ay Touba Belel xelkom sax bay Cheikh Mahamad bay Cheikh Saleh la bay Touba Belel ak feneen ak feneen ak feneen ndax eh, yàlla dafa ni ci alquran huwa anshaakum min al ardi wa staamarakum fiha summa tuubu ilay yàlla dafa bind maam Adama ak njabootam ne leen nag dama leen jox ab liggéey ci kaw suuf pour lépp lu ngeen fi maanaam jékki bi ngeen fi jékki euh, teewaay bi ngeen fi teewe am njëriñ ci sama jaam yi ba kenn du xiif kenn du mar kenn du rafle ba ñu fonk xam-xam di jàng di am xam-xam mën a jubóog seen borom mën a am dund boo xam ni dund bu ànd ak xurriya la indépendance boo xam ni tey kenn du la xëlëmtoo dara wane ni nit ki dafa war a am dafa war a nekk naabixa waaw ci wàllu xam ni mission bu mag la ko yàlla dénk ba mu ko ne wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati ci suuratul ci alquran inni jaa'ilun fil ardi xalifatan xëy na jublu woon ci Seydina Adama waaye xilaafatu googu du dañ di war ci ñu koy taxawu di ko taxawee giiru dundu doomu Adama yi ci ko xam ni gëm na yàlla waaw ci koo xam ni bëgg na lu baax parce que mbokk yi kenn du nax sa bopp wala ngay nax keneen. ñun dëkkuñu fi te duñ fi sax te yàlla ñu indi te ñu fi jëlee yàlla na yeex te ëllëg moo ñu dajalewaat kon moom moo gën a xam ban programme la bëgg ñu doxalal ko ko ci kaw suuf mag mu mel ni Cheikh Abdoul Ahad xam na programme boobu woo na ci ñëpp bi daawatin jafe la kenn kenn kenn la desewul ci naaw looloo tax euh, bisam bu tedd bi jublu si dañ ci war a nafaraat suñu nusxa suñu këyit suñu copie seet ba xam njàngale ya mu doon def ak fa mu yoon ba mu woonoon nit ñi ndax ñu ngi ci ba léegi wala déet waaw kuy murit ak kuy tijaan ak kuy xaadir ak kuy laayeen ak moom kaana mufakkiran aalamiyan waaw gis-gisam lamboon na adduna bi yemul ci Afrique gi wala Sénégal gu tuuti gi kon nag euh, di fàttali mag ñi nga xam ni loolu moo nekkoon seen euh, loolu moo nekkoon seen liggéey pour ñi fekkewul woon seen jamono mën ca jële euh, mbind ngir mën a géndi ko loolu mën leen gindi ci seen yoon euh, euh, wareef la ndax itam kullukum raain wa kullu raain masulun an raiyatihi comme ni ko xadis ba waxee ñu jële ko ci sallallahu alayhi wa sallam ak itam yonent bi saai sallam yéen ñëpp dégg ngeen ni jàng ngeen ni ci xajatul widaa la mu doon wax di ko joxe ci ay irshadaat tawjihat taalimaat maanaam di laayi biir nit ñi di leen jàngal di leen won li taxoon yàlla yónni ko mu tënk ko di leen ko wax dafa doon wax saa yu waxee benn euh, benn kàddu ñu jottalil ko mu ni ndax jottali naa ñu ne ko jottali nga yaa rasulallah ndax sellal naa ñu ne ko ah sellal nga yaa rasulallah ndax matal naa ñu ne ko matal nga yaa rasulallah mu ne kon yàlla seedeel ni la nga santoon def naa ko jottali naa na ma war a jottalee daf koy delloo ci aaya ja yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafaal fa ma ballagta risalatihi wallahu yaasimuka min annaas yàlla nee na yonent bi saa sallam li ma la wax ni joxe ko jottali ko texte ba nusxa ba mbind ma jote ko te jottali ko te na mat ba mu yées ba mu mu yokk bu mu wàññi ko bu mu yokk te na ma la ko joxe yàlla mu jëkk bëgg ñu fonk ñu waaw ne ko soo ko deful rek soo ko defeewul nii rek ah defoo la la war te soo koy defee noonu itam ma la ko digale da nga gis sax ñu taxaw di di di la di la di la di la di la yéjj di la reetaan waaye yàlla newoon na ko innaa ka fay naakal mustahziin da nga gis ñu bëgg a taxaw ànd ak seytaane pour xeex jëf ju rafet ja nga nekk waaye su boobaa wallahu yaasimuka min annaas maa lay musal ci ñi nga xam ni d'accord ñu ci programme yàlla du dëgg kon nag loolu mooy li nga xam ni moom la bëggoon wax ci ni euh, lii su ngeen ko jëlee euh, jëlee ay shahadaat ak ay seede fu nekk ñu jéem a andi ay gis-gis ci lu ñu jot a xam ci euh, kilifa gu mel ne suñu wajur suñu baay Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nga xam ni tabaarakallah law la cat law la cat géej la yaakaar naa ni dina jafe pour ñu mën ko peeg ku ci nekk da cay wax ba ba sonn ba tàyyi rek te du tere mayu yàlla ci Cheikh Abdoul Ahad suñu baay bu baax ba des di wéy di baawaan di saawaan kon nag wàllu googu lañu ñu doon waxee euh, wax joo xam ni dañ ciy ndokkale xal dañ ciy ndokkeel xalifa bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ak mboolem njabootu maam Cheikhul Khadim waaye ndokkeel ci sëñ Sidi Mbacke suñu doom baay bu baax ba suñu mag ju baax ja ak mbooleem njabootu baay Cheikh Abdoul Ahad euh, mbooleem ku aju ci xadara maam ak mbooleem ku aju ci xadaraat islamiya yi nekk Sénégal ak ci réew mi ak mboolem koo xam ni tedd ngay réew mi njëriñu réew mi sigarey réew mi euh, jàmmu réew mi ñor na la ndax amuñu lu ñu lu dul suñu réew kon dañu am suñu ay champion bopp yoo xam ne yàlla moo ñu leen may kenn jiituwu ci mag ñooñu juboog yàlla parce que champion dëgg mooy ko juboog yàlla <laughs> ñu bëgg yàlla jëriñ fii ma jëriñ fële waaye nit euh, su fekkee ne àdduna rek ko tax a jóg yàlla dina ko fi may lépp lu mu bëgg waaye ëllëg kenn xamul na muy demee te sax na muy demee yàlla joxe na ci ay malaameex joxe na ci lu tax nit ñi mën a gendiku ba xam ni nii la yàlla bëggee te moo ñu indi fii moo ñu liggéeyloo euh, moo ñu jaamuloo yàlla te jaamu yàlla ak liggéey la ñu yàlla laaj te loolu Cheikh du Ahad suñu baay bu baax ba nekk na ci exemple bu rëy a ci adduna bi comme ni ma ko waxee sànq ba li ci des mooy maa ngi ñaan euh, ci li ñu yàlla mayoon ñu ko doon fekkee Cheikh Abdoul Aziz Dabakh mbokk mu tedd ma magam ju tedd ja di soppeem di xaritam ñu bokkoon liggéey bi seq ko ñeel diine ji ak bokk gi ak réew mi ak adduna bi lu mu daan bind ba ci sax marsiye boo xam ne bindoon na ko ci moom di ko seedeel seede yu rafet yu mu ko seedeel te wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaybi hafidin di nuyu bu baax Cheikh Abdoul Ahad ibnu Cheikh Ahmad Mbacké Gaynde Fatma ak euh, kilifaam yu baax yi toog suñu kanam yëpp euh, axuna wa habibuna wa sadiquna cheikh Mouhamadul Bachir tam xaamilu kalimati alxadrati al xadimiya euh, wutu ci xalifa bi ci lépp loo xam ne xalifa baa ngi ko koy waxloo moom tam ñu ngi koy nuyu ak képp koo xam ni bokk nañu ak moom kër maam cheikhul xadim bokk nañu ak moom adduna bi bokk nañu ak moom senegal yan yàlla defal leen jàmm defal ñu ko defal ko chaîne bi defal ko seen liggéey bi waaw waaw ba tax na kon loolu moo doon kaddu yi ngeen ba ma ak waaw waaw jërëjëf sëñ Abdoul kon bisimilah nu jox sëriñ Maxtaar bisimilah tafaddal bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yu tedd yi ñu bokk toogal ne ko Cheikh Mouhamadul Mansour waxe di sunuy bokki bopp yàlla boole ñu loo xam ne mënuñu ko seddoo ñu am mbégte mu rëy ci tànk yu rafet yi nga xam ne moom lañu jóge Touba ba agsi fii ngir dundal mbokk gi ak euh, lépp loo xam ne dana ko rafetal ba ndaw ñi mën koo jariñoo àdduna bi yëpp mën koo jariñoo xam ne ñun ñëpp yàlla la ñuy wut wa anna hadihi ummatukum ummatan waxida ci ndigal li ñu sëriñ Mouhamadul Mansour joxoon ci bis bu tedd bi nga xam ne moom lañuy waajal di ci fàttaliku kilifa gu tedd goo xam ne bàyyi na ay empreinte yu am solo ci histoire Sénégal muy fadilatu cheikh il marhum cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, ci mbindi góor gi nga xam ne tànk yooyu moom itam liggéey na ci lu bare bare bari euh, bu ñuy nettali yoon wi mu njëkk a demee Touba te booba ndaw ndaw la woon ci at seeti mbokkam mu tëddema cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké radiallahu anhuma ba mu fa jógee loolu bi sëriñ Mansour doon nettali léegi bi ñu demee Touba mooy bi Cheikh Abdoul Ahad wàññi ko 1989 fekk góor gi amoon ngant yebal Pape Thierno Mountakha sëriñ Abdoul Aziz Al Amin sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour Cheikh Al Hadj Malick Touré Cheikh Al Hadj Malick Abdoul Aziz délégation bu am solo bi demee ba yaramam sawar mu jógal boppam dem keroog fa la ñu jullee juma ba muy waxtaan. tàmbule ko li yahlika man halaka am bayina wa yaxya man xayya am bayina nettali na ci lii may wax yoon woowu ba mu ca jógee dañu ko convoqué bureau politique ca ndar ne ko loo wuti woon tuuba lam ca tontu yaakaar naa ne ku dellu ci kaseet yi duma ci jaaraat leer na naññ tànk yooyu góor gi doon dox nag moo tax kilifa yi mu ko seqal yépp foofu ci Touba daanaka def na ay xasaayit ci ñoom yoon yi mu fa demee am na lu bari lu mu ci bind waaye pour jëmma loolu li ma koy cëslaa yi rek moo di ñetti baytu yoo xam ne def ko indi ci benn téeréem bu mu tuddee zaadul mushammir li duxuuli xadratil way la ma ngi cay wax naan daawul muxaalafata wa taassuba bayna al mashaayixi al kiraami kulluhum ala sawaabi yahdi atbaahu ila tariqi rushdi ahlaka man qablakum attaxaalufu fi diinihim id gayyaru wa la laa siyama xurmata lawliyaa'i fa innahum wuraathul ambiyaa'i nee na yéen samay mbokk maa ngi leen di laay biire na ngeen di indi ak wuute ak parparloo ci diggante sëriñ su tedd su baax si nga xam ne yàlla moo leen jiital nee na fa kulluhum ala sawaabi yahdi ñoom ñëpp koo ci topp dana la oriente dana la jubal ba teg la ci tariq rushd te moo di siraatal mustaqim nee na wuute baaxul ahlaka man la ko qablakum taxaalufu ñi ñu fi jiitu woon la leen alak ba tax amuñu la ñu bëgg dara indi ko ko dul ak wuute ak discorde ci seen diggante id gayyaru wa xaalafu dañoo dem ba soppi rëdd yu baax ya nga xam ne moom la mag ñi rëddoon ne nañ ci jaar ku ci nekk jaar ci saw ñal woote jëm ci sa bopp fàttee woote bu mag ba loolu moo indi problème yi rawatina nag ñu sàmmonteeg may nitu yàlla yi nga xam ne seen yàpp dañ ko tooke fa luxuumu ahlillahi masmuuma waaw dañ ko tooke ku cay wax waxal lu baax soo ko mënul nga noppi waxuma la sax nitu yàlla mais jullit rek dafa am xor ma téere yi dañuy bind ne kaaba gi li muy màgg màgg soo ko écrasé woon boo ko détruire woon ba mu jeex takk li bàkkaar ba di rëy rëy moo gën a woyof nga xotti xormay jullit waxantuma laa koo xam ne nag min awliyaa illahi saalihin fa innahum waraathul ambiyaa ñoom ñoo fi wuutu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam xasida bi nga xam ne moom laa indi góor gi def ko ci ndigalal cheikh Mouhamadul Mansour góor gi moo ko defoon ci mbokkam di doomu baayam di cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci visite boo xam ne bii daf fi jóge woon demoon Touba. mi ngi ko tàmbule minni ilab nil aarifi sunni yi xadiimi shaafiil waral mbakki yi najli xabibillahi abdil ahadi waarithi sirrihi bila taraddudi ataala umrahu al azizu al baaqi lil xalqi yahdihim ila al xallaaqi mushayidan arkaana hada addiini bijaahi shaafiil waral amiini muhammadin alayhi sallallahu wal ali wa sahbi kama yardaahu azka salaamin waaw min muhibbin faani fi xubbikum li baari il arkaani ataaka zairan li wajhi llahi mujaddidan uhuudakum lillahi lillahi yowmun kulluhu sururu bi daari cheikhin fadluhu mashhuru maa saadatin wa ixwatin kiraami akrim bihim min qaadatin aclaami salaatu rabbina alazizi albaaqi ala alladi sara ala alburaaqi wa alihi wa saxbihi alaclaami xazaini al asraari wal axkaami yaakaar naa ne xasida bi rek doy na sëkk ci jëmmal li dox diggante ñaari kilifa yi nga xam ne moom la ñu bëgg a fàttali njaboot gi ñu mën cee roy bu baax a baax góor gi dafa wax ne <coughs> mi ngi maa ngi yëkkati azka salaamin dafa jiital jaar ak majurur ji muy xabar ji mubtada mi mu xaw a yéex a ñëw waaye bim nii min min nii mi ngi bàyyi koo ci man lan moo bàyyi koo ci man mooy azka salaam nuyoo bu gën a sell bu gën a tedd te gën a rafet ci kan la jëm ilab nil aarifi sunni yi xadimi shafiil waral mbakki yi mi ngi jëm ci doomu nitu yàlla ba nga xam ne léppam ci sunna la ko teg kooku mooy kan mooy xadiimi shafiil waral mbakki yi mooy ki nga xam ne mooy serviteuru kii ram mu jaam ñi ëllëg di cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu najli xabibillaahi ñu ne ko góor gi ki ngay wax da ba léegi xamaguñ ko mu ne mooy doomu ka ñuy tudde xabibullah di cheikh ahmadou bamba ñu ne ko ba léegi dafa jaboote de kan nga wax ci ñoom mu ne ki may wax mooy cheikh abdoul ahad mbakke waarisi yi ki nga xam ne donn na mbootu way juram bila dee ci lu dul benn déng-déngi bala may indi nuyoo bi sax man maa teel a indi nuyoo bi waaye daf ko ñaanal ba noppi def na li ma koy ñaanal ak ndonn li ñu bokk moo yàlla na gudd fan atala umrahul azizul baaqi yàlla mi nga xam ne moo fiy sax du fi jóg mooy donn suuf si ak li ko li suuf ëmb yépp keneen ku dul yàlla bis dana ma sa ñëw ñu waajal la jébbal la sa boroom al abdu yafna wallahu yabqa yàlla mu tedd moomu di fi sax nag moom lay ñaan yàlla na du yàlla na guddal dund sama mbokk mu tedd mi di Cheikh Abdoul Ahad li tax ma ko koy ñaanal nag dama bëgg bu fi yàggee muy gindi jaam ñi jëmaleen ci seen borom lil xalqi yahdihim ilal xallaaqi mu leen di orienté ci njàngaleem ak taxawaayam ak fullaam ak faydaam ci réew mi ba ñëpp mën cee li ma koy ñaanal ba tey mooy bu fi desee na bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxawu dañuy dañuy dëgëral ponki diiney lislaam ndax xam na ñoo xam ne ñi ngi tuddoo lislaam waaye bu lislaam buñ ko tëroon muy ab gàtt paaka ba koy di ñoo koy daas te ci njabootu lislaam bi la ñuy wax na ci lañ bokk dama bëgg nag moom mu bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxawu ponki diine lislaam ma ko koy ñaanal nag ci barkeb ki nga xam ne ëllëg moom la ñu yaakaar bu demee ba ñëpp jaaxle mooy ram mu jaam ñi te moo di sayyiduna muhammad alayhi sallallahu wa alihi wa sahbi kama yardaahu li ma yëkkati jëme ko ci moom nag moo di azka salaamin mooy nuyoo bu gën a tedd bu gën a sell bu gën a rafet bàyyi ko ci kan min muhibbin bàyyi ko ci soppe waaw boo xam ne faanin aji jeex la fii xubbikum ci sopp la yow Cheikh Abdoul Ahad te nag defuma ko pour dara dama ko def ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne moo ñu dégal ne nañ soppante nañ bëggante nañu wóolante te dañ nañu warmaalante kooku mooy kan mooy ki nga xam ne attaque zairan li waccillaay bàyyi na tiwaawan bàyyi fa njaboot ga bàyyi fa soppe ak am di jàmm yépp jubal si Touba ànd ak mbokk yi mu àndal pour lan pour ñëw nemmeeku la jokk mbokk gi yàlla doxale seen diggante te ëllëg yàlla daf koy laaj waaw walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yusal alayhi salaatu wasalaam wax ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla may la fan wu gudd te yaatal sa wërsëg na ngay jokk sa mbokk waaw man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsaa lahu fi umri fal yattaqi llaha wal yasir rahima aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam tànk yooyu moo góor gi nee na moo tax mu bàyyi ko Tiwaawan dem ba Tuuba ñëw di nemmeeku Cheikh Abdoul Ahad li wajhillaahi ma def ko mujaddidan uhudakum kóllëre yi nga xam ne moo dox suñu diggante baay yi dox suñu diggante maam yi commencé ca mam haram ñu bokk ci lañ ca bokk wàcc ba ci mbusoobe wàcc ba ci cekkeen wàcc ba ci côté looyeen loolu yëpp yàlla rab bes ko diggante Tuuba ak Tiwaawan ci mbokk ak kóllëre da xam naa ne sax rappul waaye la cay sama mission man Cheikh Abdoul Aziz baax muy ñëw feddli ko ba yàlla xam na li ma war a def def naa ko muy bis boo xam ne nag dama ci kontaan ndax bisu diine la bisu lislaam la bisu dëgëral ak mbokk la bisu itam noppiloo ñi nga xam ne ñi ngi dund ci yàq diggante kër yu mag yi takk sa rajo toog di wax di wax ci loo xamante ne bii kilifa ga santu la ko kilifa ga digalu la ko yow sa àdduna yi bopp ak bëgg marketing moo tax ngay yëkkati kàddu yoo xam ne saa boo ko waxee ñëpp nëndo ñëpp tëj sa ñëpp ñëpp jéggi seeni reer te yow mi koy wax daanaka doonoo ci dara loo dund rek ngay wut mag ñi loolu lañ doon éviter ba tax ñu ne kon nañ jokkoo ci seen biir ba noppiloo wedam loo yàqkat yooyu moo tax góor gi ne lillaahi yow mun kulluhu sururu maa ngi yéem maa ngi bége bis boo bis bii nga xam ne ci laa ñëw seet si sama mbokk Cheikh Abdoul Ahad muy bis boo xam ne bi lépp mbégte la lépp mbokkoo la lépp rafetal la lépp dundal ak bokk la mi ngi amee bi daari cheikhin ci kër sëriñ boo xam ne fadluhu mashhuru ngëneelam ak cër bi ko yàlla defal ñëpp teg nañ ci seen bët du ko laam-laamee bi may ñëw manoon naa ànd man rek waaye dama ànd ak samay mbokk ndax nit buy dem day ànd ak ay mbokkam waaw la waykat ba wax ne axaaka axaaka nit ki maa ngi lay dénk sa mbokk yow sa mbokk na man laa axan lahu koo xam ne amuloo mbokk wala booy dem desal leen ginnaaw ka saarin ilal hayja bi gayri silaahi mi ngi mel ne koy dem xare te yore woo ngànnaay da ngay neex a dàq moo tax bi may ñëw dama seet samay mbokk ma ànd ak ñoom pour ñu dox pour ñu gis li may dox ba ëllëgee ñu xam ne yoon waa ngi nii moo tax mu ne masaadatin wa ixwatin kiraami maa ngi ànd ak ay sang ànd ak mbokk yu tedd akrim bihim min qaadatin alaami tabarakallahu kawte fu tedd nga ci sang yu tedd yii ma àndal di ay njiit di ay alam yoo xam ne bi ñu ràññeeku lañu ñoom laa àndal pour ñu seede tànk yi nga xam ne moom lay dox maa ngi tëje kàddu gi nag di ñaan yàlla salaatu taslim salaatu rabbina al aziz yi ala alladi sara ala al salaatoog taslim yàlla bu mu dañ di sotteeku di dotteeku ci ki nga xam ne moom la yàlla rañaane woon ci dàbba jooju ñuy wax alburaq ak sa ak saxaabaam yu tedd yi ak njabootam ñoom ñi nga xam ne ñooy magasin wu mbóot yi ak secret yi maa ngi ñaan yàlla loolu bu mu dañ mukk lii daal moom lañ doon indi ci xasida am na yeneen xasaayit waaye comme que dañuy bañ mu gudd ba ëpp ñu doy loolu lii fa tabarakallahu ñaan yàlla ah yàlla nañ yàlla dolli sutura lii yàlla nañ ci jànge lu baree baree bari ña cay defaroo yàlla nañ ci yàlla boole man damay faral di wax na diggante Tuuba ak Tiwaawan jaxasoo na ci mbokk jaxasoo goo xam ne ku ciy wax waxal lu baax soo ko mënul nga noppi tabaarakallaahu xasida bi mu doon wax kii wax ne Tuuba ak Tiwaawan ñaari dawla la ñu fii dawlatin te warul koo ko xamul na wax ba lii muy bañ yàlla def na ko jéeg waxal ba waxal ba xotti ko yaamal uuna yow xatu xol Tuuba jaamal ak cene ba kadaka njaasaan walla yéen koo ci gis teralal kadaka saaxi ma al baqina ajmain noonu la ko toppee ba mu jeex wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tabaarakallah Cheikh Makhtar waaw eh, yow itam tabaarakallah na ngi lay ñaanal bu wax macha allah li nga indi am na solo lool di way yu am solo yoo xam ne lay amatut eh, wax dëgg yàlla mag ñi wàcc nañ nun noo ci des li fi sës nag mooy topp ci seen i tànk te jée jéem a dégg seen i njàngale te jéem caa jaar. way wi jële jële naa rafet gi mu rafet rek waaye lim ci sol ci ay baat ak tawxid bi ne ci biir ak jóg gi mu jóg ngir siyaare ji te jëm yàlla rek a tax mu wax ko ci biir di wane ne xol bu sell la yor kim doon la doon dafa jóg rek ngir jëm yàlla loolu nag di lu mat di lu mat a xel waaye sañ Moxtaar xam naa bala ngay tëj rek eh, dañuy def ñaare at mu jot dañuy gunge eh, màggal gi thème boo xam ne day day yitteel day tolloog jamono day nekk thème d'actualité ren ñu gis ne eh, jamono yëngu na ci àdduna bépp ba ci rawatina réew mi nu nekk nu jëloon nag jàmm ak xajoo assalaamu wa tasaamux liñ ci jublu mooy rek nit ñi gën a tee dellu ci seen bopp dellu ci seen i njàngaley kilifa di leen eh, seen i kilifa jàngal ci lislaam ñu bëggoon nag yaari baat yooyu nan lañ ko mën a jàng ci ñaari mag ñooñu ñoom nan lañ doon dundee jàmm ak xajoo ci seen jamono ak xew-xew yiñ traversé nga xam ne mënoon naa jur aw ay ñu jaar fa ci jàmm ci seen wax yu rafet yooyu ak seen jëflante yooyu loo ci dénk ndaw ñi. dañuy dénk ndaw ñi rek mooy ñu am kilifa waaw dañuy nit ku baax dafay am kilifa te kilifa dañ koy roy ndax dafay wone yoon mag ñi li ñu traversé metti woon na lool waaye terewul la waroon ci seen diggante ci jokkoo ak rafetal fa tabaarakallaahu dox nañ ci lu rafet a rafet minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullaha alayh fa minhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila référence yooyu jarul ñu koy jëggaani bitim réew yàlla may nañ ci Sénégal ba mu doy sëkk fa tabaarakallaahu euh, problème bi nag moo di dafa am crise bu am boo xamante ne bii ci sama bopp laa koy tàmbalee ci sama biir kër dugg ci kër keneen dugg ci kër keneen dugg ci kër keneen crise boobu nag bu fekkente ne bii jur yi taxawuñ ci niñ ci war a taxawee ci yar njaboot gi orienté leen jàngal leen te bañ a jukki seen loxo ci njaboot gi bañ leen a bàyyeeg réseaux sociaux yi bañ leen a bàyyeeg modd yu bees yi bañ leen a bàyyi yi xew ci jamono ñu koy jéggaani mun naa dem ba yàq lu bare bare bari fa la soo ko defee ñu ñaanaat ndaw ñi ñu delluwaat rek ci référence su mag ñi jéem a nafaraat seen njàng la ca jiitu mooy yar ak teggin waaw sëriñ Mouhamadul Mansour mi ay waxtaanam benn discours la am te moo di fexe ba ndaw ñi rek am civisme xam ñooy ñan xam lan mooy doxal réew ci xorma ak yar ak teggin aaya bii mu wax sànq yàlla loolu la bëgg ci doomu aadama masuuliye bi yàlla dénk doomu aadama moo di taamirul ard waaw amaana bi ak masuuliye bi bi ko yàlla dénkee asamaan ak suuf dañu bañ inna aradna al amaanata ala alsamawati wal ardi wal jibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha ay wa xafna minha ñu wane na ñoom attanuñ ko wa xamalaha insaan lan moo tax doomu aadama nangu ko yenu ginnaaw bi asamaan ak suuf yeeg montagne yëpp bañee na duñ ko yenu lu tax doomu aadama yenu ko li tax mu yenu ko mooy mooy al maxluuq al mufaddal al mukarramu al mudallalu inda allahi subhanahu wa taala wa laqad karram naa bani aadam kon yàlla xam na ne lim ko yan attan ko ci xel mi ko jox ak leer gi nga xam ne gii moom la yàlla tibb ci boppam def ko ci biir doomu aadama fa ida sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi loolu moom may doomu aadama force li yaram wi tuuti tuuti li fan yi di gàtt gàtt yàlla def na ci moom doole joo xam ne montagne attanu ko asamaan attanu ko suuf attanu ko ndax fa ida saw waytuhu su ma ko bindee man yàlla ba jekk-jekkal ko ba tem-temal ko ba bind bi rafet lool dama souffler ci moom loo xam ne ci man la bàyyi ko te lépp lu bàyyi koo ci yàlla dafay ànd ak doole moo tax doomu aadama attan àdduna man fee defar loo xam ne bii keneen mënu ko ko dul doomu aadama même malaaka attanu ko ndax li yàlla def ci moom defu ko ci malaaka fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi responsabilité boobu nag yàlla gàll doomu aadama te mooy dundal suuf si waada allahu alladina amanu minkum wa amilu salihaati la yastaxlifannahum fi l ard kama staxlafa alladina min qablihim ba aaya ba jeex doomu aadama fii ak mi ngi yëg loolu xam lan mooy responsabilité xam ne dafa war a tabax te bañ a toj dafa war a defar bañ a yàq fii ak loolu mi ngi am rek defar réew dana ko yomb mais bu fekkee ne topp sa passion jiital sa bëgg-bëgg te réew mi mooy sangu ñëpp kenn amul droit yàq ko muy kuréel yëpp nag muy couche yëpp di fiaat yëpp di tabaqaat yëpp waaw kenn amul droit yàq réew kenn amul droit yàq suuf da ngaa war a tabax responsabilité boobu Cheikh Abdoul Ahad bu fekkente ne bi ndaw ji bàyyi nañ ci xel mag ñi bàyyi ci xel ñi jiita bàyyi ci xel ñi ñu jiite bàyyi ci xel bu ëllëgee danañu teer fu neex yàlla bu fekkente ne ku nekk danga jiital sa passion ak sa bëgg-bëgg rek lii mooy sama intérêt ñi ci des sama yónne ko ci pëccaxoo mooy am yàq réew mi mooy am te loolu baaxul Mawlana Cheikh Abdoul Aziz Dabakh daana wax na radiyallahu anhu Sénégal gi ma gis jigéenu wérul la doom jëmuy mucc ëllëg yàlla nay doom yi jàmm kon boog nañu joxante lox nañu soppante nañu bàyyi passion yi nañu bàyyi bëgg-bëgg yi te jiital li nga xam ne mooy intérêt yi réew mi te yàlla tax moo xam ki jiita la moo xam ki ñu jiita la moo xam ndaw ñi la moo xam mag ñi la ñun ñëpp nañu takku xam ne Sénégal gii moom la ñu am mooy suñu gaal gaal nag boo ci duggee bëgg bëgg mucc bul ñaan mucc bul ñaan sa ëmb mucc da ngay ñaan yàlla gaal ga mucc ñëpp ànd bokk mucc góor gu baax gi daana wax ni Sénégal bu fekkonte ni bii dafa am benn xal bu ko suufu ma yore benn guuxu ndox ñu ne ma soo ko naanee da nga mucc bee xal bi dana taal réew mi waaye boo ko ci sottee xal bi dana fay mais sa jëmm du ko fekke nee na man tànn naa guux boobu ma sotti ko ci xal bi pour mu fay Sénégal mucc ma wuy ji sama borom lu ma fa fekk baax na yaakaar naa ne sens de responsabilité boobu ñun ñëpp suñ ko bokkee dund jàmm ji nga xam ne moom la ñuy woote joxante loxo te fitna baaxul wattaqu fitnatan ci lay tëjee incha allah xoolal rek wal fitnatu ashaddu min al qatl rey ni mu diise keñ xas ba rey ñàkk nga sa bakkan mais ki nekk ci fitna mu ngi ci fitna dundatul njaboom dundatul kon ñu ngi ñaan yàlla daal thème boobu nga xam ne tey moom la ñu tànn mu di al islam wa tasaamuh ñu jéem ko traité ci façon boo xamante ne bi ndaw ñi danañ ci gis seen bopp man damay wax ne ndaw ñi banuñu waaw dañoo ah, laaj rek ñu encadré leen am na ñoo xam ne xamuñu dañu laaj ñu xamal leen am na ñoo xam ne dégguñu dañu laaj ñu déggal leen am na ñoo xam ne gisuñu dafa laaj ñu gisal leen bu loolu amee rek bañ a rejeter kenn bañ a gedd kenn xam ne ñëpp ñoo leen bokk jaboote puisque kii woote jëm ci yàlla itam bu fekkee dafa gaaw a mer gaaw a gedd ko wax mu saaga la doo woote kenn waaw daawatu ilallah dafa am ay majaalaat yoo xam ne yajibu istiaabuha moom kii woote mu def ko bil xikmati wal mawidati al xasana sayyidina muhammad ci loolu la nekkoon benn waaye ñëw na fekk ko mu toog mu ne ko yaa rasulallah dama bëgg nga may ma ndigal ci njaaloo ak moo yàlla saxaaba yi bëgg dal ci kaw mu ne bàyyi leen ko uddunu waa ji jege si mu ne ko ndax li nga wax ne da nga ko bëgg a def beneen jigéen bëgg nga ko ko defak sa yaay mu ne ko déedéet sa bàjjen déedéet sa tante déedéet sa sœur déedéet mu ne ko yow itam noonu nga ko bañee ci ay say mbokk noonu la ko nit ñi bañee ci seeni mbokk jël loxoom bu tedd ba teg ci bopp waa ci ne allahumma hdi qalba wa hassin farjahu waghfir dhanba maa ngi lay ñaan yàlla sa jaam bii sàggan ba wax lii mu wax ñàkk xam rek a tax dama bëgg nga jubal xolam yow yàlla def ci hidaaya def ci mbaax génne ci ak caay-caay aku ceddo wa hassin farjahu yàlla na nga ñoŋal pëyam ba dootul tekki tubéy tubayam mukk ci kanamu jigéen joo xam ne lewu ko wax waxfir dambahu bàkkaar bu masoon a def ba keroog muy toog fii yàlla na koy jéggal yow yàlla ne ko yalax waaj a bokk ci saxaaba yu tedd ya mais bu fekkente ne ku wax nga saaga ko ku wax nga terroriser ko ku wax nga génne ko ci dina lislaam ba wutul saaxa bi dana dem ba wit te loolu du ndamu lislaam ñu baalu xaq bu baax a baax. tabaarakallah tabaarakallah Cheikh Muxtaar euh, li nga indi ci wàllu jàmm tabaarakallah am na solo ma su ca dawle dara xanaa di sant rek euh, tey gën a feddali coloré googu gi nga xam ne moom la mag ñi jëmbatoon te bàyyi ko fi. Eh, di leen bëgg nag bu baax ndax yéen naka jekk nag seen taxawaay ci wet googu ak seen wéyal loolu kenn nattable ko fu ngeen àddoo ci luy rafetal luy boole luy benn la rek ci ngeen nekk naka jekkit seen bokk yi foofee ci Tuubaa yi lañ nekk kon yeneen yi ñuy dégg ci mbedd bi noonu ko suñ Muxtaar waxee ña ca bitti ña ca aneer ya la ñuy wax ñoom la concerné waaye concerné wul ñi nga xam ne nag ñooy kilifa yi kilifa yi li ñu fi bàyyi mooy rafet-rafet yi mooy yu yi mooy yi rek tabarakallah ngir seen kóllëre gu yàgg ak seen jamoo am na marché bu mu ko defaloon boo xam ne ma ngi wax ci biir naan soyatukum kullama xad kaana munhadiman min baadi waalidikum yaa saafiya suyami kam min faqirin ka ibin xalla saaxatakum wa aba yaskurukum kam kam wa kam wa kami <laughs> tabarakallah moom moom góor gi doon poète tabarakallah di waykat shaayir mufliq macha allah di ko ñaanal suñu borom yokk ay leeram Euh, ak i ngëneelam te taas nu ci barkeem di sant nag bu baax di bég di leen jot li euh, nuyoob Serigne di Mbacké ci yéen akuk cantam euh, ak fedd li kóllëreem ci diggante bokk gi ak diggante wayjur jur ak maam ya tabaarakallah di ko suuxat ak a sàmm di bég bu baax di ñaanal xadratul malikiya jiital ci Serigne Babacar Sy Mansour yàlla yokk ak wéram yokk kattanam ba sumb ak naal yi nga xam ne sumb na ko te naal ko sun borom may ko kattan gum ko àggale tan ànd ko moom kon de bokk dañuy jox sëriñ bi rek bu ko defee mu def kàddu yu tàggatoo defal nu ñaan ba beneen yoon incha allah ñu ngi waxtaani bay Cheikh Abdoul Ahad radiallahu anhu dafa am bés lii ci lamiñu Cheikh Alhaaji Malick Si Abdoul Aziz laa ko déggee mu ni dafa toog baayam Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz woo ko xamatuma ndax aynu maadi la woon wala feneen dama ragal ne ay nu maadi la ne ko a ah, yow de sa baay Cheikh Abdoul Ahad moo la doon woo am lu lay sant jaare na ko ci jaare na ko ci man mënoon na la woo itam mubasharatan ndax njabootam nga waaye nee na sa doom baay sa mbokk Serigne Cheikhouna Euh, la bëgg nga ñëw ba ca moom ca Touba ba Cheikh Abdoul Ahad sa wajur yónni la nga dem jëlali ko njabootam gi war a ñëw ci kër gi tey mu ni tey soxna soosu nekk soxna Serigne Cheikhouna euh, ma nga woon ci kër sëñ Abdoul ne góor gi daal ne ko nag ndigal li moom gaaw ci dem léegi sëñ Maodo nee na noonu la jóge daal di dem te ndigal loolu mu doon jële ci bàyyam Cheikh Abdoul Ahad suñu wayjur dox ko ba mu sotti ba dem ba ca kër Serigne Cheikhouna ba yónent ba aw fa mu war aw ci anam ba mu gën a rafete góor gi alxaaj Abdul ci keroog mbég mu rëy la bés boobu def ci moom ak gis-gis bu yaatu bu sell bu tedd bu yiw bi suñu wajur Cheikh Abdoul Ahad am ci boole njaboot gi yëpp ñu nekk benn ba benn pose du dox ci diggante wajur yu baax yooyu loolu nag fàttali ko suñu bopp fàttali ko nit ñi bokk na ci euh, mbind yi gën a màgg tubaab naan ko leçon arab yi naan ko dars lu ñu war a jàng pour dugal ko jéem koo dugal ci nañuy dunde ci suñu biiri kër ak suñu biiri njaboot waaw bu ni tam mu ni ah, bi mu paree tam sëñ Maodo ba paree loolu bi sëñ Maodo paree loolu noppa noppee ci loolu bay Cheikh Abdou Lahad yëkkati benn kaamil bu rafet daal di ko jox sëriñ Cheikh naa ne ko kii jox ko sa mag mu nekk orboonu mahabbatin wa axuwatin wa sadaqatin fii ma béy na ko ma waaw ne ko sama digganteeg sa baay buum gi sar na ba pare yéen a ci des te ne ne ko da ngeen ko laytaayali fulla ak fayda te loolu mooy lépp lu ñu la teg te nga war ko bañ bañ ko ci saasi bu ko nangu xam nga fulla ak fayda ci rek tabaarakallah lii yëpp daal inna hadihi tazkira man de dama dama naan waskur fil kitaab yi ci alquran ci suratu Maryam bëgg nit ñi am bëgg nit ñi am dalil rek du dëgg pap waaw ni yàlla tuddee turu yonent yooyu yëpp ñeel Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam naan ko nettalil sa xeet lii ñi la jiitu woon la ma nemmikoon ci ñoom man seen borom ci mbaax yooyu moo tax fàttali ko am na solo fàttali ko am na solo wallahi waaw jërëjëf allahuma ya rabbana qad daawnaka kama amartana fa ajibna kama waadtana wala tuxayib wala tajal rajaana xaayiban bi barakati xubbika wa mahabatika li rasulillahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa li anbiyaika wa rusulika wa awliyaika wa ibadika salihin wa bi barakati allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaq nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalina walhamdulilahi rabbil alamin bijaahi rasulillah sayidina muhammadin